waaw salaamaaleykum gannaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant samay waajur ñaari waajur sant kilifa ak diine yëpp euh, damay wax rekk ci euh, sëñ Mouhamad saw ndax nit ku ne soo amee dara da nga koy gërëme ñëpp xam nañ ne bi may ñëw fi di wut chambre de commerce xaw ma fi woon lu bari kiñ ma njëkk a booleel. gannaaw lu dul ñi nga xam ni ñoo ma an ñoo ma ñoo ma ñoo ma woo ñoo ma indi kii ma njëkk a booleel nga xam ne ne ma mën a laa jàppale moom mii la xaw ma mi ngi koy fàttale bu baax ay damay bañ a tudd ay tur rek waaye xam naa ñi ma booleeg moom bu baax yoon wu ma njëkk a génn tamit dajeeg ay nit moom laa njëkk génn ànd dajeeg nit dem ah, dajeeg ay kilifa fële ci ñoora bis ba ñuy taxaw di gañe tamit gañe maalaw sama oto lan duggoon ñun ñoo ànd fu nañu di ko def am na taxawaay bu rëy rëy lay lu ñu bari xamul kon maa ngi ko ci gërëm ah, mu nekk tamit membre chambre de commerce ndax élu la ci élection ba le passé nekkoon élu ci ñi ñu doon xëccool mais mu gis njariñu Kaolack mu ne ah njariñ li fii la nekk kon naa bàyyi fa ma nekkoon xam nga loolu lu jafe la mm-hmm. Euh, ma di ko naw nag ci loolu bu baax a baax ndax euh, maalaw ku bañ mu wax la dëgg bul ànd ak moom loolu moom xam ko xam naa ko bu baax a baax ku yaakaar ne mën nga ko jox àddina ak li ci biiram ba bu gisee dëgg du la ko wax tamit bu ko jox dërëm yàlla la yàlla fay ci loolu lii nag xam nga yàllaa la ci boole waaw ndax sa baax ndax kenn woowu la te xam naa ne boo nekkoon Dakar ñu woo sax nga ñëw hmm. waaye da nga ñëw fekk ko rek léegi nag lii nag ci turu opérateur économique yëpp la moo tax ñi fi tudd ñëpp ñu def fi lu baax ñun ñépp kenn ku ne danga koy encouragé euh, gàmm bu jotee def nit dimbale dundal guddi gi jox nit ñi ñu lekk te fexeel lañ gën a bëgg way tax ma mën a taam ala hubbihi ñëpp xam na ni nit ki buy gàmmu dana soxla lu dugal ci biiram dana soxla lum naan dana soxla aar wér-gu-yaramam kon nag yal nañ ko yàlla di man loo ñu di ko def waxtu wu ne di gërëm nag équipe bi ma ko àndal ndax làmb sa poos wala génn yomb na waaye fexe séddale ko ba ku ne man caa jot ci ñoom la yàlla leen yàlla dimbale ñu man ko séddale. Euh, day ndokkeel boppam ci bés bi loolu président Serigne dégg na ko keroog ba mu ñëwee Kaolack ba léegi day ndokkeel boppam moom it ci weer wii te dégg nañ ci waxu baay mu ne weer wi bu xasee ba teru doo gis benn yoon weer wi taawu lëndëm leer rek lay taaw loolu nag xikma la kon moom bu àndeek leer goog ñëw indil ñi lii nga xam ne euh, dafa nekk ndox ak ay naan comme ni ñu ko gisee lu toll ci wàllu ndox mu indi ci lu mat 2000 pack kon loolu lu am am solo la lu toll ci wàllu boisson mu indi ci lu toll ci 7000 pat loolu tamit dañuy gis rek ne bés bi da koo laaj. ndax bés la boo xam ne dafa gën a bëgg mu gën a yaatu. yegg fu nekk ku ne jot ci cëram. looloo tax ginnaaw loolu mu boll ci li ñuy wax ay masque lu toll ci 10 000 masques yoo xam ne dina ko jël lii dina jaar ci loxo kilifa yi nga xam ne ñoo yore li nga xam ne ñooy organisation gàmm gi rawatina bu ñuy tudd bu ñu tuddee xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass danañ ci jox.

mbégte la lu tax ñu ne ceeb mm. tamit ndaxte jàmm mooy jiitu loolu yëpp moo tax mu jiital maski yi teg ci loolu kon bu président waxee loolu ne da koy def te at bu jën mu ko doon def loolu coût bi rek booy xool mu ngi tollu ci vingt millions bu ko mu dajale